waaw mais sama papa rek ci weeru koor gi dafa woor toog ci buntu kër gi di wér sama yaay romb ko xiif baaxul ne ko alaaji yaa ngi toog sama papa ni ko waaw sama yaay dem marché ndugg lu mu toggee ndogu ñëwaat romb sama papa waaw alaaji euh, noo def sama papa ko waaw bu ma juumul am na fu ma la xàmme <laughs> sama yaay xiif na sama papa sama papa julli ji nañ tëbaski wallahi cuubu palmal la sama papa sama papa dafa neexoon nag ne ko yàlla yërëm sama papa dafa neexoon man moo tax suñu waa kër mënu may na rey parce que ñoom sama lañ miin sama papa man ay ceeram laa ay ay xaaju xaajaatu sama papa laa sama papa julli ji sol cuubu palmaan ba ñëw mooy reen di xarit suñu koñ yëpp nag sama papa ay rey sama papa xale yi ay sët yéeg waa koñ bi maam lañ ko doon wax ñëpp papa papa mam maam maam sama papa tiim xarit di reen di sët yëpp ci papa yaa ngi taqa sa yére su mu naa leen su meeku bu yàgg de cuub bi la xam nga cuub palmal bi la yaram bi yëpp moom xale naan papa su meeku naan leen su meeku naa bu yàgg de ay waay su sam papa moof yow ñu naan ko doo wax seeni day tax mu su meeku naa de palmal bi la naan palmal palmal ba moof yow donc